waxtaanee faram fàccee tolluwaayu réew mi euh, loolu mooy li nga xam ne moom moo yëkkati émission bi ñu leen koy defal en direct euh, ñu am mbégte nag euh, dellu siwaat ci ci jamono boo xam ni ku ne xam na ni jamono bu doy la ci réew mi jamono la boo xam ni tey koo xam ni daanaka denculoo sa néew sax denc nga sa néewu dëkkandoo wala sa jegeñaale ñu nekk ci jamono boo xam ni yaakaar naa ni àddina wërngal këpp ci suñu génération mun nañu wax ni ñu ngi koy doog a jànkonteel ñaan nag yàlla euh, ñi nga xam ne ñoo ci ñàkkale yàlla may leen xolu muñ ñi nga xam ni itam ñoo la ci seen bakkan des yàlla xare leen àjjana ñaan ñi nga xam ni itam ñoo fi des yàlla muccal leen ci li nga xam ni mooy mbas mi yàlla mën na ko yàlla yàlla def parce que nekk na euh, phénomène wala nekk na virus boo xam ni damay faral di wax ni euh, moytu ko taxul cee mucc li la si mën a musal rek xëy na mooy suñu borom. nañu ñaan yàlla suñu borom musal ñu dëgg la yàlla yàlla bay sa tool ndax itam baax na ci parfois euh, charte yi nga xam ni euh, dañu wax ni daf lay musal bokk na ci di takk sa masque loolu itam farlu la am na ci solo lool euh, bokk na ci di raxas say loxo farlu la loolu itam am na ci solo lool bokk na ci itam di dàndante loolu lu am solo la yaakaar naa ni loolu buñ ko saxoo booleeg itam di ñaan yàlla musal ñu mën nañu am njoxt bu rafet ni mën nañ cee mucc ndax ñi nga xam ni itam dañoo dem bari na ci ñoo xam ni matuwaay yi ñuy wax daanaka kenn gënu leen ko woon a jël waaye bi ñu waree dem ci mbas mi dañ cee dem euh, kon ñu ñaan ñi nga xam ni itam ñoo fi des yàlla suñu borom musal ñu ndax euh, aji gëm bu ne yaakaar naa ni sa ngànnaay mooy ñaan moo xam jullit nga moo xam leneen loo mën a doon euh, kon ñu ñaan yàlla rek musal ñu ci li nga xam ni mooy mbas mi suñu naataangoo yi nga xam ni itam tëdd nañ ci yàlla yëkkati leen ak jàmm musal leen ci ñeneen ñi nga xam ni itam daanaka duñu suñu ay naataangoo waaye di ay téléspectateur bu groupe Futur Média wala sax koo mën a doon ci biir réew mi te nga tëdd ci mbas mi yàlla la yàlla yëkkati. Eh, delloo la ci sa li nga xam ne mooy sa sago. Euh, kon tey mu mënuñu woon ñàkk <coughs> yëkkati kàddu yooyu euh, tey nag ñu am mbégte di recevoir euh, Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Tidiane Dieye moom mooy coordonnateur avenir Sénégal bi ñu bëgg nekk itam coordonnateur bu M2D moom la ñuy recevoir mbokk yi tey ci seen émission faram ak télévision Futur Média Cheikh Tidiane ñu ngi lee maa ngi lay fay euh, Pape ngañ di am mbégte bu baax a baax ñëw ci euh, plateau Faram Facce di tàmbali rek euh, comme ni nga ko defee ñaan yu am solo yi nga ñaan pour jëmale ko ci askan wi yëpp ñu àndandoo wax amin pour yàlla musal ñi nga xam ne ni tegagu leen natt wu ñu am Covid ñi nga xam ni yàlla moom na seen bakkan ci mbir mi mu xare leen aljana te. Euh, ñuy masawu askan wi yëpp ñi nga xam ne ñàkk nañ ci ay doomu aadama ndax euh, comme ni nga ko waxee ñëpp la laal ku mu laalul directement ci sa njaboot laal na koo xam euh, ñuy jaal ñëpp jaal mbokk yëpp man mi sama bopp laal na ma lu weesuwul tey rek mhm. ci mbokk gi ñuy jaale ñëpp di ñaan yàlla mu teggi ko parce que aussi ni nga ko waxee mën nañu jël matuwaay bu ne fexe lu nekk pour moytu ko te war nañu continuer di ci góorgóorlu mooy yi nga wax geste barrière rek lu mu mën a doon Euh, waaye itam yàlla mbiram loxoom daf ci nekk te ñaan la ñu am. ñu ñaan moytu yàlla yàlla bay sa tool waaye ñaan yàlla bu baax a baax mu musal ci askan wi yëpp donc ñuy masawu ñu ñëpp di ñaan yàlla itam mu may ñu émission bi ñuy jàkkaarloo di ko def mu am njëriñ am na njëriñ askan wi mu xalaat yu ñuy génnee muy xalaat yu am njëriñ itam te ñu def ko ci loo xam ne lii mooy euh, lu lu neex yàlla te yàlla sàmm ñu ci dimbali ñu ba dara du ci yàqu. d'accord <coughs> jërëjëf Cheikh Tidiane avenir Sénégal bi ñu bëgg. Euh, dañu koy dégg nga nekk coordinateur bi euh, mu mel ni ci at léegi mu jegee juróom benni at bi ngeen ko sosee ak léegi euh, ca doxte ga am na ñeneen ñu ci doon dégg ñi ñàkk nañ seen bakkan ñi bokkatuñ ci nekkoon ci ay kàngam mu nekk tey mouvement boo xam ni nekk nga ci bopp bi waaye mais mu mel ni bu weesoo yow wala bon ancien ministre bi Fatou Blondin Diop daanaka duñ ci dégg kenn mu mel ni daanaka li ñuy reprocher peut-être yenn parti politique yi bay wax ay partie cabine télé sans euh, cabine poli euh, comment dire euh, cabine téléphonique yooyu mooy nekk itam ñaare ci mouvement yi mu nekk mouvement boo xam ni bu paasee yow ak moom buñ ci dégg ñu bëri ndax mën nga ñu pour pourquoi mu demee noonu jërëjëf euh, laaj bi am na solo lool laaj bu bu am solo la bu may permettre ma wax tuuti ci plateforme avenir Sénégal bi ñu bëgg. Mhm. ndax tur bi rek dafa jar ñu taxaw ci ndax moo tax ñu tuddee ko plateforme mouvement nga wax c'est vrai dañ ko tëddee plateforme li tax ñu tuddee ko plateforme mooy. Mhm. dañu def loo xam ni dañu bëgg sénégalais yu baree bare maa xam euh, ñu nekkoon ci mouvement citoyen ñu nekk ci association ñu nekkoon sax ci politique wala ñu bokk ci parti. te gis seen bopp ci li nga xam ne ñu ngi ko bëgg doxal tuddee ko Sénégal bu ñu bëgg muy projet politique ñu bëgg cee bokk ñëw ànd ci ak ñun. te defuñu ko parti politique loolu mooy particularité am dañu ko def loo xam ne demuñu par exemple ministère de l' intérieur wuti récépissé nekk parti parce que bi ñu koy sos. 2015 Sénégal amoon na 300 et quelques partis politiques ñu ne bu ñu ko defee yokk ci benn day nekk un parti de plus li ñu bëgg def dañu bëgg a def kuréel penc moo xam ni Sénégal bii ñu bëgg te ñu théoriser ko ba xam lan la ñu dajale ci ay nit ñoo xam ne xëy na bu dul woon lii du ñu mën a ànd mu am ci ñoo xam ne dañu ne bëgg nañu dugg ci politique mais bëgguñu ko forcément dugg ci parti politique donte parti politique yi am nañu role bu baax a baax di ko jouer ñu respecté leen mu am ñoo xam ne dañu ne ñoom dañ ko bëgg a def en tant que indépendant mais def politique parce que constitution mayee na nga nekk indépendant def politique bi ñu ko sosee porter projet te li tax am solo mooy dafa am ñoo xam ne dañu nekkoon ak ñun parce que suñu laytaayu liggéey assise nationale la ñu bi ñu ko jëlee cest à solo bi solo bi Cheikh nga baal ma. waaw euh, ci wax solo bi yaatu na. Mm-hmm. mais pratique ci maanaam ci lu ñu mën a teg loxo. ci activité. Mm-hmm. plateforme bi comme ni nga mm-hmm. koy waxee. cest à loolu moo ëpp importance. ci laa jëm parce que mënuloo depuis 2015 aussi. nga teg benn plateforme boo xam ni yow ak sa jigéen rek daanaka lañ a dégg. mais bëgg ndax bi gisuñ ci benn animation. très bien ci ndax boo waxul background bi li ñuy wax ci ci background xamoo fi ñuy li ñuy def lan la. alors nag may may rek ma daaneel foofu bi ñu ko taxawalee Euh, di liggéey ci loolu laytaay bi base bi nekk assise nationale ak CNRI commission de réforme des institutions moo tax ñu ni Sénégal bi ñu bëgg ndax assise ñëpp nangu nañu ni sénégalais yu baree baree bare dañ ci àndoon ci conclusion yi commission de réforme des institutions ñëpp nangu ni mooy li wara a changer réew mi ñu dajale loolu def ko mais du parti politique ambition bi ñu amoon mooy donte dañu ni bépp processus politique maanaam élection ak lu mu mën a doon euh, euh, plateforme bi ci am candidat bu jóge ci biir plateforme bi bu amul bu jóge ci biir plateforme bi dinañu ànd ak ku nekkul ci plateforme bi jox ko suñu projet politique ànd ci évidemment ñuy liggéey nag pour am suñu plat candidat boo xam ne day jógee ci ñun maintenant ñuy ñuy évoluer mu am ñu ci nekkoon am ñu bàyyi plateforme bi continuer xam nga résultat bi am importance am kenn kenn kenn kenn kenn kenn bokkul cest à am ñu bàyyi ah, ah, am ñu bàyyi te kenn bokkul ci plateforme xam nga ñi bàyyi xam nañu leen xam nga ñi bokk kenn gisu leen ah ñi bokk ah kay xaaral ma expliquer ah, bi tey mu ngi ci département yu bari ak région yu bëri fii ci dakaar xam nga yaa ngi wax Ndeye faatu Diop Blondin mi adjointe bi ak man mi tey rek laata may ñëw am na beneen chaîne de télé bu mag boo xam ne ka fa nekkoon di wax di invité bi ci plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg la bokk te xam nga lan mooy particularité kooku dafa bokk ci mouvement boo xam ne mouvement national des artisans la ñëw dugg en tant que artisan ba ñu wooyee foofa ñu yebal ko fa te mën nga ko wax ci lu baree baree bari gox yu nekk ñu am fa ay nit mais li nga xam ne moo doon suñu cëslaay suñu taxawaay ak suñu ambition ak objectif mooy être dans dans un premier temps une plateforme politique qui compte xam nga dafa am loo xam ni ça se compte nga ni nangam laa ci dayoo ay nit lu baax la waaye dafa am loo xam ni itam da nga naan je compte parce que suñu ambition moo doon ñu bokk ci espace politique bi bokk ci ñiy génnee idée politique génn bokk ci ñiy génnee xalaat yu bees ci wàllu politique bokk ñi ñiy def animation te tey ku waxal yàlla xam ne boo doon jël fukk ci ñi nga xam ne ñooy kuréelu politique moo xam parti di mouvement di plateforme ak lu mu mën a doon di nga cité avenir Sénégal bi ñu bëgg ni yéen kat ay la yëwoon ah, bokk ngeen loolu yaakaar naa ni ñi lay dégg sax mënuñu gëm bokk ngeen bokk ngeen ñi lay dégg ñi lay lay dégg boo bëggee boole avenir Sénégal bi ñu bëgg nga bëgg ko boole aha kay ci bokk nga ci ñi ngi ci plateforme wala mouvement yi compté tey ci biir réew mi xoolal Pape Ngagne juróom sax mën nga ko ci boole boo ko jëlee sur une approche qualitative ok maanaam ñiy génne ay xalaat parce que politique quantitative politique xam nga quantitative lan nga koy natte itam mooy ñi dem élection am na ñoo xam ni nee naa la ëpp na trois 300 partis politiques au Sénégal yow télé nga nekk ay journaux ngi fi ci 300 yi amu ci lu ëpp fukk yoo xam ne di ngeen jël woo leen ne leen ñëw leen ci discussion def ngeen communiqué wax ci génnee ci xalaat ñu bëgg a dégg seen xalaat lan nga dara xew na ci réew ngeen génnee ci proposition jox ko askan wi jox ko gouvernement bi jox ko ñeneen. boo ko doon xool du ëpp fukk yoo xam ne ñu ngi leen ci def te danañ ci boole moo tax ma ne la boo doon génnee fukk ñu bokk ci parce que dafa am solo ndax politique ci réew du rekk jamonoy élection politique ci réew mooy saa su nekk askan wi soxla nekk ci ay jafe-jafe moo xam ci Covid bii ñuy dund walla leneen lu ñu dund walla lu ñu dundoon mu am ñu taxaw indi ci ay xalaat dugal ci leneen li nag mooy. joxe yaakaar itam espoir. espoir bi mu ngi joxe yaakaar aussi. espoir déjà mu ngi ci suñu projet politique parce que bu ma lay wax projet politique. mooy Sénégal bi ñu bëgg te ñu téorisé ko te mu nekk fi pour euh, euh, élection yii fi mujj ba bi ci mujj muy 2019. te ngeen ànd ak Ousmane Sonko. évidemment parce que dafa méngoo ak suñu décision te ngeen ci seen ci seen ci seen mu nekk seen candidat ci élection présidentielle. parce que politique mooy doxee noonu xam nga lu tax dañu ni plateforme avenir Sénégal bi ñu bëgg dañu bëgg def politique autrement du ñu ñëw fëgg dënn ni diw da nga mel ni da nga juddu rek yow yaa war a nekk président. ñun dañu nekk ci approche de changement structurel u réew mi changement boobu ndax Cheikh Tidiane Dièye moo koy porté moom kese wala avenir Sénégal bi ñu bëgg mooy jël pouvoir ñu ne avenir a gagné wala beneen groupe boo xam ne dañuy ànd nekk ko ñun dañu bëgg créer condition pour mu changer. te lenn loo xam ne dafa am Sénégal bi ñu bëgg da ngeen ko gis ci Ousmane Sonko. dañu ko gis dañu ko gis 2019 bu ñu yemee ci lool parce que 2019 la ñu ko soutenir 2019 loolu moo tax lii may expliquer am solo projet politique quatre-vingt-dix-neuf pour cent te ñu assumer ko parce que dama nekkoon ci assise nekk ci vice président commission valeur mais ma rek vraiment nga ko expliqué rek ba ñu ma nga mhm. expliqué ma ko mais boo ci bëggee par mhm. exemple question bi précise mhm. te mënoo ma indi réponse boo xam ne bu cest à ca laa jëm waaw mais mais pour mu gaaw rek s'il vous plaît pour ñu mën a dem na ko ci leen ah bu gaawee te xamuñu fu ñu jëm bëgg xam nga bëgguma nga nekk fii rek bëgg wax assise nationale yi bëgg wax sénéri bëgg xam nga xam nga waaxu wala ngay daw xam fa nga jëm moo ko gën du dëgg dañu am projet politique bu tudd Sénégal bi ñu bëgg 2019 te ñun dañu cohérent ci suñu démarche parce que nee naa la kenn ëppale wu ñu ambition ci réew mi y compris diriger ko waaye dañu ni li am solo mooy naka la ñuy créer condition ba changement mën a am waxuma rek changement processus électoral may alternance mooy transformation boo xam ne day indi ñu def véritable alternative 2019 jot ñu toog ci suñu biir fii à Dakar suñu secrétariat politique national ak suñuy kuréel ci biir réew mi. candidats yi ñëw ñu ni ñu dem loolu aussi lu jar a teg nga teg fa baaraam la parce que bi ma lay wax que on compte dañuy compter dañu bokk ci ñiy compter. nit ñi di leen respecté di leen bàyyi xel ay candidats ñoo ñëw seet si du du ngeen mës dem waaw du ngeen mës dem bu bu bu xam nga ni du ngeen mës dem Cheikh Tidiane kuy dem xam nga xam nga dem mais mais ma rek xam nga dem xam nga luy dem ñun ñooy ñii dem parce que Pape Ngagne le le l'acteur de changement man bëgguma sax wax ci sama bopp duma ko def mais dama lay jox firnde le plus constant ci at yu mujj yi 2007 2008 ak léegi parce que da ngay wax assise bëggaloo ko dégg xëy na mais boobu ba tey ak la ñu ca décidé y compris ñi nekk au pouvoir ak ñeneen ñu ñëw après bokk naa ci ñi ci gën a constant te wuñu parce que dafa am fu ñu bëgg a jëm yoon woowu dafa am nu ñu cay demee 2019 ñu téye su constance bi ban njëriñ déglul rek déglu constance bi mouvement bu ne dinañ la ci dégg ñoo lànk dinañ la ci dégg dinañ la dégg ci leneen nag mais luñ la dégg par exemple duñ la dégg ci dara loo xam ni lu lu lu dëgg la constance bi am na mhm. mais ci loo xam ni lu lu ñu mën a lu mën a amal njëriñ nit ñi aussi lan la ci ah kay léegi may ma may ma xam nga lu amal njëriñ dafa relatif waaw ah, non mais attends li ma lay expliquer mouvement yi mais c'est vrai constance bi ñu ngi fi toujours yaa ngi dans l'opposition dëgg la c'est vrai mouvement yëpp ñu ngi la ciy dégg yooyu lan la tekki mouvement bu ñu ci dégg tey suba kenn dootu ko dégg mais li ma lay wax moom mooy li ma lay expliquer xam nga mouvement bi ñu nekkee 2019 war a dem élection il faut que ma expliquer loolu parce que c'est très important parti yi bëri nañu candidats yi bëri nañu ñeneen bëri nañu ay candidats ñoo ñëw seet si ba suñu plateforme ni ñu dañuy dem élection présidentielle da ngeen dañoo bëgg ngeen jàppale ñu parce que lii ak lii ak lii la ñu gis ci yéen ñu évaluer ni ñun duñu demal suñu bopp 2019 parce que jàppuñu woon ni 2019 mën nañ cee dem mais ñu jàppale benn candidat ak suñu projet politique ba ñu ca jógee mu am li mu am moo ko moom mais dañu ko indil suñu idée suñu jàppale suñu campagne ñu jóge ca mu am lu xew ci réew mi loolu mooy mooy importance su li ngay wax tama ma ko boobu posture xam nga réew dafa soxla ay acteur ak ay kuréel yu mel noonu bi ñu yëkkatee affaire u wax nga ay aar li ñu bokk ak yeneen kuréel lu ñu assumer la parce que suñu héritage la ak suñu initiative ñoo jël boobu action def ko ñu duñu réagir dañuy action proactif ñu yëkkati Sénégal affaire gaz ak pétrole avenir Sénégal bi ñu bëgg bokk ci ñi ni lii am ci réew mi warul nekk débat wu politique pouvoir opposition aar li ñu bokk animé kaay expliquer la. animu animu waaw xaaral ma expliquer mais animu tey non du xam nga question bi nekkul gis nga mouvement M2 M23 jóge na fi dafa amoon durée de vie am lu mu waroon liggéey 2012 ba mu jeexee man fa laa ci pare dem defi leneen. aar ñu bokk dafa pare ci li mu doon liggéey. dafa am lu mu yëkkati. non dafa pare ci li mu doon def. xaaral ma expliquer la ah, dafa am dafa am lu mu yëkkati ci pétrole ak gaz. créer débat. suscité xam nga xam nga Pape Ngagne li gën a am importance ci processus de transformation transformation réew du tey ak suba day jël temps loolu da ngay liggéey conscience yi ak mentalité yi gis nga importance su pétrole ak gaz ci gouvernance am ba tey jii sénégalais yi ñu ngi ko téye toog ci. parce que xam nañu importance am nga indi leen mouvement. mais loolu day compliqué. xam nga mouvement politique. mouvement yu dul jeex. xam nga mouvement yu dul am benn njëriñ yu ah, xam nga jamono mooy dicté mouvement. jamono pétrole ak gaz bi mu taxawee il fa que état bi gis ay citoyens organisés communauté internationale ak ñi nga xam ne dañu bëgg dugg ci pétrole ak gaz du Sénégal gis ñi nga xam ni noonu la sénégalais yi taxawee pour contester loolu pour indi ay proposition loolu ñu assumer ko def ko bi ñu demee ba pouvoir bi fi nekk def ay pexeem def ay lanenam ba ñu dem ci wàllu judiciaire ñoom ñu ni dara amu fii lépp leer na ñu ni leen baax na parce que ñoom ñooy état. loolu ñu yem ci parce que liggéey bi foofu la mënoon divergence aussi ci ci biir mouvement yi mënul ñàkk mënul ñàkk dina bokk ci li nga xam ni ay lànk fii aar fii loolu mënul ñàkk xam nga ñàkk déggoo xëccoo loolu leadership loolu mënul ñàkk xam nga résultat bi xam nga wax nga aar li ñu bokk wax nga yeneen résultat bi ci gën a am solo mooy le fait que nit ñoo ñu ànd mën a bokk pas-pas ci benn idée bu ñu yëkkati pour réew mi xamante ci wàllu liggéeyandoo tax na bi ñu leen woowee ci leneen ñu mën a jóg ñëw ci parce que mën nañu liggéey loolu rek résultat la apprendre à travailler ensemble fàtte sa intérêt bopp dara xew ci réew mi ma ne man duma ma jóg rek xeex pour avenir Sénégal bi ñu bëgg du lool rek laay def ni diw ak diw ak diw waru rek toog ci seen partie wala seen mouvement nañu leen ànd yëkkati dara même bu dee ñetti sénégalais la ñu yee ba ñu gën a comprendre enjeu yi gëm nañu ni la c'est important parce que gis nga réew gouvernance citoyen moom moo mooy mooy base bi te citoyen yi tant que conscient wuñu am imp intérêt ak am pas-pas ak taxawaay bu mën a jóg bu ko laajee ñu défendre réew mi gouvernance du fa am parce que booba waa pouvoir a fii nekk di def daanaka lu ko hmm. neex te du am lu ko contrer moo tax